doomi kan lay takk Tahirou Sarr ñoom rek la de waaye maki Sall ah li nga fi defe ngi fi de voilà sénégalais yi ba léegi giifagul de seen xol yi seddagul de doomi jàmbur yi nga xam dañoo laago woon dam ñii dee ah loolu gars yi fàtteeguñ ko de yow ngay ñëwal sa bopp gars yi nag xam naa ni bari na ñoo xam dana def sorti moom wala léegi nag complot la wala du complot loolu ca kanam rawul ay bët gën yow gars yi di la wër ngay ñëw voilà soo ñëwee rek mu gën a neex xam nga li may wax ak nii daanaka mën naa ne mooy li may wax rek yàpp sénégalais yi lañ def voilà ray doomu sénégalais yi damm doomu sénégalais yi torturer leen def leen leen nga bëgg fee ñëw di cakkaay ak di mbumbaay ndax ku nekk xam ne ne takkuk Sénégal moom gis ngeen léegi li xew boo takkalee sa doom euh, euh, euh, jabar maanaam mbumbaay def ak noos def xeeti buur yooyu noonu voilà léegi nag sénégalais lam daay di gis loolu noonu te barki Dembo Ndiaye képp lan jàpp seen doom yi sànni leen i lacrymogène ba ñuy bëgg a dee ñii damm ci ñii seen i bët tuuru ci voilà moo tax ñii ñu ñoo ciy dee rek voilà parce que ñoom ci seen jëm bopp ñoom li leen li nga xam ne moom lañu bëgg buñ ko amee ba buub xaalisu Sénégal bi dem ci yeneen réewum noose fa ndax fi na leer na ni bu takkee doomi waa ndaw si ba pare dañuy ànd demaat ci yeneen réewum noose parce que xaalisu Sénégal bi yëpp lañu sàcc voilà alalu Sénégal yëpp la sàcc voilà ñoom euh, li leen xamal ne maan bëgguñu Sénégal gis nga ki bëgg Sénégal Sénégal di am réew mu am ferte ci am réew kooku bu wàccee daa war a des Sénégal ak xaalis bi mu sàccal Sénégal sax et moins sax waaye defuñu ko dañuy dem ci yeneen réew jël xaalis boobu tuuraat ko ci dëkk boobu noonu bu defee dëkk boobu di gën a naat wala moom mu bàyyi am réew mi mu juddoo fi bàyyam juddoo maamam léppam mu gent loolu mooy dëgg moo tax président Afrique yi wallaay laa si bari na ci ñoo xam ne nii xaala wala kasi leen xamul maanaam féppum ndox fépp xam-xam nekkul ci seen bopp yi parce que imancel européen yi mos ngaa gis benn européen bu toog ci am réew ba wàcc naan day dem ci réewu Afrique yi dafay dëkk te ñoom yor nañ alal bu ñëwee ci réewu Afrique mën nañ fee defar palais mais defuñu ko dañoo bëgg seeni réew toog ci seeni réew voilà seen alal jan am mu desaat ci seen biir réew xoolal occidentaux yëpp wax ban occidentaux benn président occidentaux moo wàcc rek dem ci yeneen réew jël xaalisu askan ba wala xaalisu euh, réew ma dem dëkkaat ci yeneen réew wax ma doo ko gis fenn xam nañ ñu vacances yi dellu siwaat mais fu ñu mën a vacances yi lu mu yàgg-yàgg dañuy delluwaat ci seeni biirum réew loolu mooy fonk sa dëkk loolu mooy bëgg sa peuple mooy bëgg sa réew waaw ku bañ sa peuple nag peuple bi bañ la rek Macky Sall ci boppam wax dëgg fa yàlla daa toroxal Sénégalais yi bëgguñu ko wax nag mais loolooy dëgg ba pare wëlbatikuwaat bëgg ñëwaat nag mel ni du moom sénégalais yi fàttewuñ de moom xam naa ne moom boo fi duggsee moom coow dina dina dina dina ah parce que lii problème bi mooy nit ñi ñoo fàttewul ba léegi seen maire dafa giifagul voilà yéen demagul fenn nga naan da ngay ñëw fii da ngay takka sa doom voilà jabar voilà da ngeen fii ñëw voilà yoota yumbee voilà def lu leen di am sénégalais yi ci boppam nañu yeewu xam ñi ñuy fal bu baax a baax a baax a baax bu ëllëgee heureusement yàlla dimbali nañu ba ñu falee ñi nga xam ne ni jar nañ ko waaye ñoom it tamit gis nañ ni ñu ngi doxal bu baax a baax a baax maanaam sénégalais yu ci baree baree bare bu fekkoon tey da ngaa woote woon di laaj yan sénégalais ñoo soxla ñu indiwaat Macky Sall bu ñu dee téeméer maanaam juróom-ñeent fukki yëpp dina tàllal seen loxo bu fekkoon da ngaa waxoon ni dajale bari lu toll ci téeméer. ni leen nag kenn ku nekk ti sa loxo ñan ñoo bëgg Macky Sall dellu siwaat ci réew mi wala ñu teg ko ay sanction juróom-ñeent fukki yeeg juróom-ñeent ñëpp dinañ yëkkati seeni loxo voilà moom parce que lim fi def ak lim fi bàyyi sénégalais yi mosuñu koo xam bari na ci ay sénégalais yoo xam ne ñoo yu baree bari yoo xam ne wax nañ ni maanaam président bu mel ni Macky Sall yàlla buñ ko gaaw a amaat ci Sénégal sénégalais yu bari dañ koy wax. nga xam ni kon sénégalais yi dem nañ ba egg foo xam ne ni maanaam jëmmi Macky Sall xool ko ni gis ko rek problème la problème la ci ñoom parce que torturé gi mu leen doon torturé voilà roi bi mu jàppee woon boppam ak ñi mu àndaloon jàppoon ni maanaam asamaan si bu doon wàcc mu taawu ko ba tax mu dugg ci loo xam ne ni sénégalais yi mosuñu koo xam sénégalais yi daj ci nguuru Macky Sall Euh, dayin goo xam ne nii musuñu koo daj ci benn nguur bu fi mës ci torture ci jàpp mandat d'arrêt tëj ay doomi jàmbur yi deful dara ñii seeni loxo damm ñii seeni bët tuuru ñii daati faatu loolu yëpp mu mel ni loolu dara musu fee am Macky Sall daal président lu fi nekkoon boo xam doon na def lu baax wala dem na Maroc ma foofu ànd ko njabootam di noos yoonu mi nekkatul ci senegal mu ne nag day wëlbatikuwaat ñëwaat fii ci senegal pour takkal doomam jabar noosaka gundaandaat ak yëcc aju ah sénégalais yi de xëy na mën naa am ñu muñ ko mën naa am tamit ñu fàtte li nga xam ne jotoon na fee jaar de voilà waaye am na ñoo xam ne moom ba ilaa yow mi diin nee nañ baaluñu la ay sénégalais yoo xam ne ba ilaa yow mi diin lañ wax nee na ñoom baaluñu Macky Sall ëllëg dinañ taxaw ci kanamu suñu borom layoo ci ñi nga xam ne tooñ na leen Sénégal nag yaakaar naa ni bari na ci ñoo xam ne moom Macky tooñ na leen ndax ñu ci si seen yoon nekkul woon sax daanaka mën naa ne son yoon nekk na ci ndax mbir mi moom bi muy metti Sénégal yi yëpp a ko yëgoon kon loolu na leer voilà ñi fi nekk nag acca léegi nag ñoom lañu xaar Sénégal yi tamit ñu ngi leen di déglu voilà euh, wun benn yoon euh, ñu ngi xool ba xam na la ñuy mujjee ñii fi nekkoon parce que ñii fi nekkoon dañ fee bàyyi loo xam ne Sénégal yi ñoo bëgg ñu ku sàcc alalu Sénégal nga delloo ko Sénégal képp ku jël loo moomul nga delloowaat ko ci réew mi parce que Ousmane Sonko moomu ko Diomaye moomu ko dañ leen a dégg sénégalais yee ko moom te loolu la sénégalais yi di réclamer président bi nag bu fekkee dañoo bëggoon a def mandat d'arrêt ci moom pétition ya ci aju te moom mooy ñëwal boppam est-ce que sax dina ñëw bu fekkee dina ñëw waaye bu fekkee dafa ñëw fii takkal doomam jabaram te gars yi naan mandat d'arrêt rek dafa war a dellu si waat ak sénégalais yu bari di ko wax mu ñëwal boppam ba fii takkal jabaram takkal doomam jabar def la mu war a def lépp daal di jëlaat avion delluwaat ca Maroc noosu jiwaat ah bu boobaa da wax dëgg yàlla Sénégal yi danañ gën a am lu leen metti loolu nag yee ko wax sénégalais yi ñoo wax seen naqar ñoo koy jàllale. parce que loolu dafa nekk loo xam ne ni vraiment kenn mënul xam lan la lan la parce que ñu ci ëpp yi ñoo bugg Macky Sall mi ñu tëj ko ci kaso bi comme ni mu doon tëjee doomi jàmbur yi loolu la ñu wax de sénégalais yee ko wax ah voilà yi ñoo ne ñoo wax ni. Macky sàll dañ ko war a tëj ci kasu bi mu ñam kaso comme ñëpp parce que moom ci jëmi boppam dafa jàpp ne maam kasu moom néeg la boo xam da ngay dugg rek ñu tëj la tijji la voilà dañuy fekk koo xam defu dara ñu jàpp tëj loolu yëpp sa parce que lan la yaakaar naa ne ku yërëm sa peuple di dox di dox ci say waayu euh, peuple yaakaar naa am na yoo xam ne sax waroo ko def parce que àdduna dafa gudd tànk te àdduna dafay wari nga ko voilà te loolu yëpp tey jii bañ koy wax wax